te yow nag yow alwaar nga jógee beneen côté booy bi dox na deux kilomètres loo bëgg ma jëndal nga ni. benn deux cent benn deux xam nga way xaar may boobu. xale yi ku leen juuroon leen. barke sëñ Bamba no xaar may daa xooy Sénégal la may mën a way xam way loo wayoon ans si ginnaaw mu ñëw léegi nii xaar mbay nee na benn chemise ngeen bokk yéen a gore benn cigarette ngeen bokk yéen a gore ataaya bu ñu cotisé wul doon naan yéen a gore xale yi ku leen juuroon leen barke sëñ Bamba non yaa non xaar mbay moo daa xawee si monde bi non xaar mbay non il faut ma dem ba xam nga soriwul xaar mbay si kanam la ne damay dem ba Fass parce que xam nga Sénégal dañuy bàyyi da nga dee ñaan waxoon na lii mais barke rasulaay xaar mbay mi wàllu yu la man maire bi xam nga naa lu tax saa su ne rek muy musóoru bañ a léttu lii xam nga ah, beñe fu ne nii géwél dañuy grève de parce que géer yi ñaan gi ñu nekkee nii géer yi ñoo daax ñaan sa géwél yi <laughs> yow booy loo bëgg ah, beñe Kala yi kulan churan yaram le.